jamono yi nga xam ne ñoo weesu am ngi dégg ngeen fi riir mi ñuy wax ne usine ñu ngi implanté ay usine de d'huile et farine de poisson si biir dëkk bi usines yooyu nag dafa jur njombe njombe bi mu jur mooy déjà li ñu waroon a jëkk respecté mooy population yi nga xam ne usines yi ñu ngi si seen biir loolu par exemple mooy li nga xam ne mooy manquement bi nga xam ne le non respect bi nga xam ne état du Sénégal parce que kii joxe agrément état du Sénégal la. demal leen seen bopp ngeen xool Ndar xool xool euh, Kayar xool xool Nduxura xool Joal xool Sanjara ñoo ñëpp boo leen demee si population yi dinañ leen wax li ñuy wax xet gu bon mu ngi leen di rey pollution mu nga fa sa à dire que ndox yi ñu ngay yàq seen ndox yi ñuy turaat beneen bi créé na ay conflit entre mool yi rawatina suñu mbokki jigéen yi nga xam ne ñu ngay gejj ñu ngay keccax amatuñu lu ñu kecax parce que usine bi ñu ngi wax ne par exemple ci recommandation yi bu mu jënd ci jën bu tooy bi waru ko jënd parce que usine bi kayit yi ko régis bu ñu waxee cahier de charge loolu tubaab di wax li ko mandargaal pour mu taxaw mooy warul jënd jën bu tooy mu ngi war a yem si déchets yi jóge si marché bi wala jën wi nga xam ne mu ngay waaj a ñàkkul ñu jël ko yóbbu ko wala yax yeex yooyu di jóge si yeneen usines yi moom loolu la war a liggéey mais warul jën jën bu tooy si recommandation yi ñu ngi wax ne état bi na farlu ba usines yooyu sart yii mu leen tëral ñu wéy si bañeeti jënd jën bu tooy bi fexe ba pollution boobu xam ne nit ñi ñu ngi koy dund na délocaliser usines yooyu jëli leen fi ñu ne beneen bi mooy beneen usine bu mu amate Sénégal na defar ab loolu tamit am nañ si yaakaar bu baax si gouvernement bu bees bii fi ñëw parce que am nañ si ay ay écho ay retour yoo xam ne yi gis nañ ne mu ngi si yoon moo dina beneen usine bu mu ñëwati Sénégal mais yii fi jot ko nekk nañ fexe ba xet gi bu mu rey nit ñi mais si kanam ñu fexe délocaliser leen parce que fi ñu leen war a yobbu du foofu ñu leen def parce que bu kayit yi jaaroon yoon bu ko population yi gisee def naa ne boo demee Nduxora boo demee Joal wala nga dem Sandiara ñooñ dinañ la wax usine bi warul nekk fii parce que googu xeet ku si am gën da ngay ruus nekk na loo xam ne lii loolu yëpp bokk na si loo xam ne lii moom lañ dajale tey indi ko fii si ministère bi c'est-à-dire fii ñu ñëw nii suñu kër la mooy suñu ministre de tutelle donc moom mooy joxe agrément pour usine sangam amal kon kooku moom la ñu jébbal tey kayit gi nga xam ne moom la ñu wax mémorandum bi pour que vraiment loolu ñu wax noonu mu nekk si bu si jubloo parce que waxuñu bu mu fi ne rek mais bi ñu waxee ne bu mu fi ne dañ joxe ay solution loolu mooy xalaatu ñii nga gis ne ñu nekk samay ginnaaw nii ay kàngam lañ ñu xam li ñuy def la xam fu ñuy teg seen tànk donc ay nitu dëgg lañ nitu dëgg yooyu nag dañ ne lii bu mu fi am mais nañ jafe nangam